bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilaalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilman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 sant buur yàlla bi ñu may fanaanug jàmm ñu di ko ñaan yal nañu yàlla may kendaluk jàmm ñu bokk dellu sant yàlla buur bi tabaaraka wa ci xéewal bam ñu xéewalal mu ñuy wax ci suratul ibrahim ne mooy buur bi nga xamante ne moo ñu may moo ñu jox ci lépp lañ ko ñaan lépp loo xamante ne ñaan nañ ko ko moo ñu ko may moo ñu ko dottil moo ne ñu bu ngeen fi nekkee di lim la nga xamante ne mooy la leen buur yàlla xéewalal du ngeen ko mus a peeg du ngeen ko mus a jeexal du ngeen ko mën a xam sax ba tax na buur yàlla tabaaraka wa taala mu ñuy wax ci alquran bokk na ci xéewal woowu lama leen defal dañu ñu nekk ci moment vacance bi nga xamante ne xale yi jànguñu nasaraan mu école ngalla waay nañ leen jël xale yi yóbbu leen ci daara vacances yi jàngal leen alquran xam loo leen seen diine ndax yàlla ne mooy may ki ko soob ay doom yu jigéen kese mooy may ki ko soob ay doom yu góor kese waaye bokk na ci moomelam ak la muy maye mooy jaxasel nit ki mooy boole doom yu góor ak doom yu jigéen ki ko soob waaye mooy def ki ko soob mu bañ a am lenn ci doom waaye mooy bind ko soob tamit waaye nag moom yàlla ki xam la tax mu def lii waaw ki xam la tax mu def lii la waaw yàlla xam li tax mu def lii waaye na ki ko man la tamit moo tax mu ne ñu lillahi mulku samawati wal ard yaxuluqu maa yachaa yahabu liman yachaau inaasan wa yahabu liman yachaau dhukuran aw yuzawijuhum dhukuraanan wa inaasa wa yajcalu maa yashaau aqima innahu alimun qadir yàlla nee na ñel na yàlla nguuru asamaanu juróom-ñaar ak nguuru suuf juróom-ñaar yaxluqu maa yasha mooy bind ko soob yaxabu mooy maye li man yashaau ki ko soob inaasan ay doom yu jigéen kese kom la mu defal yonent yàlla Suayb ay doom yu jigéen kese la ko yàlla may wa yahabu mooy maye li man yashaa'u ku ko soob zukuran ay doom yu góor kese kom nu mu defal yonent yàlla yaqub alayhi ay doom yu góor kese la ko yàlla may aw yuzawijuhum zukuraanan wa inaasan wala mooy may ki ko soob ay doom yu góor ak doom yu jigéen kom la mu defal suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa may na ko ay doom yu góor ak ay doom yu jigéen wa yaj'alu man yashaa'u aqima mooy may ki ko soob du am soxna sax bay am doom boo amee soxna tamit du am doom comme nu mu defal yonent yàlla isa alayhi salaam yonent yàlla isa njaboot waaye amut doom yalla ne la tax ma partager quatre positions yamala tegtal nii yow yonent bi innahu naka moom yàlla alimun ki xam la tax mu def lii la waaw ah, xam na ko de li tax mu def lii moom dong ko xam xadir ki ko man la tamit keneen ko dut yàlla amul kenn ki ko man xam-xam bi nag du xam-xamu scientifique du xam-xamu buxaaba man-man bi tamit du man-manu docteur du man-manu science du man-manu médecin waaw yàllaa xam li tax mu may kii ay doom yu jigéen kese te moo ko man tamit yàllaa xam lu tax mu may kii ay doom yu góor kese te yàllaa ko man yàllaa xam lu tax mu may kii ay doom yu góor ak doom yu jigéen te yàllaa ko man waaye yàlla bi léegi moo xam lu tax mu def kii amul sax soxna wala bu amee soxna du ci am njaboot yàllaa xam lu tax mu def kooku noonee te yàllaa ko man aw kañ keneen ku dul ci yàlla xamoo ko ba koy man kon yàlla bu ne la kii ko xam laa ah xam-xam bi nanga delloo fa moom ki ko xam la de bu la ne ki ko man laa bul fi nekk di géem a xultu wala di géem a lëñbët li tax mu man ko moo ko man de waaw yow sa nekk bi fii sax xam-xamu yàlla moo la fi tax a man-manu yàlla moo la fi tax a bàyyi kon yow boo jallar bekkoo di géem a gëstu la tax yàlla xam lii ak la tax yàlla man lii kon yow yaa fiy jóge ndax boo sooboo ci xelaat boobu rek ah man ngaa faatu te boo faatoo mooy xaru nga te boo xaroo nag mbëggalu yàlla ngay dem tàbbi waaw dangay ngay gëm la yàlla nekk ko xam laa nga gëm ko noppalu ngay gëm la tax yàlla nekk ko man la danga koy gëm ne yàlla man na ko ki ko man la nga noppalu waaye boo fi nekkee di géem a xool la tax yàlla xam ko la tax yàlla man ko a ah, yaa fiy jógee rek te boo fi jóge ko xaru la te boo xaroo nag ah mbëgalu yàlla moo lay xaar yal na ñu yàlla déggloo aaya alquran moo tax mu ne ñu ci suratu saad ne ñu kitaabun téere la boo xamante ne anzalnaahu ilayka man yàlla maa la ko wàccel yow yonent bi mubaarakun téere bu lambok barke dong la waaw li yadabbaru ayatihi ngir ngeen nekk di saytu di càmbar di gëstu di géema ràññetli kawteef ya fa nekk waaye wali yatazakkaru ulul albaab boroom xel yu yànj yi ñu di si war a mën a ñu di si war a mën a xerewlu ñu si di war a mën a jëlee fa xerañte boo xamante ne da di la leen di njëriñ kon téere bi lamboo na ñetti mbir ba ñeenti mbir bu njëkk bu téere la waaw téere la mu di téere alquran yàlla ne yonent bi ne kitaabun ab téere la loolu di benn waaw ñaareel bi yàlla ne yonent bi ne anzalnaahu ilayka téere bañu ñu wàccee ci yow la waaw téere bi bu dee moomeel la yaa ko moom ndax ci yow lañ ko wàccee ñetteel bi mooy mubaarakun muy téere ju làmbook barke waaw bi téere la mu tudd alquran waaw alquran la téere bi tudd waaw yàlla ne yonent bi ne téere bi alquran la tudd téere bi alquran la tudd ñaareel bi anzalnahu ilayka la wàcc ñu jox la ko waaw la ñu la ñu jox la ko yow muhammad sallallahu alayhi wa waaw bu dee moomeel la yaa ko moom waaye yàlla ne dama la kaa jox ngir nga jottali la ci nekk ci sama jaami muy say xeet sallallahu alayhi wa ñetteel bi mubaarakun dafa am barke waaw mubaarakun dadi téere bu làmbook barke waaw téere bi barke dong la fees waaw amut foo amut caaxaan amut la nekk ci ay lay nasaxal dundu doomu aadama au dafa ñëw li yuxrija naasa mina zulumati ila nuur daa ñëw jëlee nit ñi ci bokkaale yàlla ci riir ci lëndemaayu bokkaale yàlla yóbbu leen ci leeru wiital yàlla ñoo tax yàlla ne mu da di tiiri ju am barke boo ko jàngee am barke ña koy jàngale am ña koy jàng am barke fu ñu koy jàng mu am barke waaw ñu koy waxtaanee mu am barke waaw tiiri ba suñu maam yi fonkoon suñu wuy jur yi donnu leen ñoomit ñu fonk ko suñu sëriñ yi ñëw jil ndono li ñoomit ñu béy seen waar waaw sëriñu sëriñ yi tamit béy si seen war ba tey ji taalube ñu mel ni ñu nag suñuy sëriñ ñu jot si ñu di si nab nabi yal nañu yàlla fayal suñu maam ya sàmm ndono bi ba ñu jot si suñu sëriñ yi tamit yàlla leen yàlla fay ñu ñaan yàlla suñu borom rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada rabbana laa tajal fi quluubina gillan lillazina amanu rabbana innaka rauf rahim yal na ñu yàlla fayal ñu ñu jiitu ci diine bi ñu jàpp ndono bi téye flambeau bi ba ñu nit ñu jot si yàlla na leen yàlla fay amin ya rabbal alamin moo tax yàlla ne yonent bi ne waaw bokk na ci critère téere bi troisième critère bi mooy mu mubaarakun dadi téere ju am barke waaw bokk na ci la tax mu wàcc ngir ñu war si war a mën a bénéficier wu barke yi ci nekk yàlla ne yonent bi ne li yada baru ngir ñu war a mën a saytu ñu war a mën a def investigation ñu war a mën a càmbar ñu war a mën a def la nga xamante ne mooy recherche ya nekk ci téere bi waaw ña ko war a mën a defee nii nañ ko def ña war a mën a càmbar tiire alquran nañ ko càmbar ña ko war a mën a gëstu nañ ko gëstu ña ko war a mën a def recherche nañ ci def recherche waaw ña ci war a mën a déggee nañ ci déggee ña ci war a mën a niitoo nañ ci niitoo li yadabbaru ngir ñu war a mën a càmbar ayaatihi kawtif ya fa nekk waaw dang ci bëgg càmbar kawtif yafa nekk yàlla ne yombalal naa la ko dugal waaw dugal àlla boo xamante ne boo ci duggee loo ci taxan yaa ko moom géej la boo xamante ne bu dee danga sànni sambaal lépp loo ci napp ci xeetu bénéfice yaa ko moom jawala boo xamante ne boo ci sóobu a ah, jëlal si jitpri privé rekk dugal ci jaww ji xool waaw jaww alquran jawwul quran dugg ci baxrul dugg ci xool xaabatul quran allum alquran géeju alquran jaww alquran li yadabbaru ayatihi ba yàlla joxoñ dem leen ngeen xool kawti fi fa nekk rek di ngeen duy seen xel ba mu fees ngeen duy seeni yenn yeneenu bagaas yi ngeen yóbbaale ba mu fees te dara du jóge ko ci kawtif yaleen yàlla joxoñal ci alquran waaye nag ñaareelu kuréel ba yàlla préparé ngir ñomit ñu war a mën a bénéficier wu mooy waliyatazakkara ulul albaab waaw boroom xel yu yaatu yi borom xel yu yànje ñi nga xamante ne dañuy inspiré wu ci alquran dañuy inspire wu ci téere yàlla ay kawteefu yàlla subhaanallah inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi lleyli wan nahaar la ayatin li ulil albaab loolu yàlla joxoñal wuutu ba guddeeg bëccëg du wuutu wante ak nu mu bindee juróom-ñaari asamaan mu ne caw ci kaw ak juróom-ñaari suuf bu ne nang ci suuf ah yàlla nee na ak wuutu ba guddeeg bëccëg di wuutu wante guddi bu ñëwee climat bi changé lëndëm kiris ngelaw bu féex di ñu ëf bëccëg bu ñëwee jant bi ne tey suñu kaw ak la muy àndal doomu aadama am courage ngir war a mën a génn dem kër-këri am lu muy dundee yàlla nee na ah ñu koy xelaat mooy boroom xel yu yanjey fii tamit mu ne wali yatadakkara ngir ñu war a mën a xelaat ngir borom xel yu yanj borom xel yu rafet yi borom xel yu sorey yi borom xel yu yaatu ñu war a mën a xelaat kawteefu yàlla kon yàlla ubbil na fi buntu ñaari génération waaw liya liya dabbaru ayatihi boobu génération la ñooñu ñooy gémm def investigation recherche waaye nag wali yatazakara ulul albaab borom xel yuy yanj yi ñu mbit ñu war a mën a am xel ba ñuy xelaatee kawteefu yàlla bokk na ci la tax yàlla joxoñ fii borom xel yu yanj yooyu ñu war a mën a xelaat kawteefu yàlla ba nga xamante ne moom la buur yàlla tabaraka wa taala joxoñ fii moo tax bi ñu demee xool ca suratul luqmaan buur yàlla tabaraka wa di wax yonent bi sallallahu alayhi wa am na sama jaam ba nekkoon ci jamono di luqmaan ñu tuddee ko saar ci alquran mu ne ko fàttalekul keroog ba luqmaan doon waxtaan ak doomam waaw seen seen waxtaan bi seen seen seen ñaaroo boobu saf na yàlla lool waaw neex na yàlla lool waaw yàlla mi ko fekkee buur yàlla nee na yenentu bi fàttalikul keroog ba Luqmaan doon waxtaan doomam waaw seen waxtaan bi mu doon waxtaan bu neex lool waaw buur yàlla tabaaraka wa taala me ko fekkee mu ne yenentu bi ne fàttalikul keroog ba Luqmaan toogoon ak doomam mu di ko waxtaanal Luqmaan lan la doon waxtaan ak doomam ndekete doom dina waxtaan ak baayam waaw waaw ndeke doom dina toog di waxtaan ak baayam ah kañ ndeke doom dina mun a am lamuy muy ak doomam ah kañ wala baay dina am lu muy essence ak doomam ah kañ am na de buñ demee xool dinañu gis ndekete Luqmaan daf doon waxtaan ak doomam mu ne ko wa is qaala Luqmaanu libnihi wa huwa ya'izuhu fàttalikul keroog ba Luqmaan doon waxtaan ak doomam fekk mu ko doon waar bokkoon na ci lim ko wax yaa bunayya yow sama ndoom yow sama ndoom laa tushriku billah ngalla waay bul bokkaale ki dara bul bokkaale ki kenn bul bokkaale ki yàlla leen ndax inna shirka la zulmun azim ndax bokkaale yàlla da tooñ bu mag da di lindamaayu xol lëndëmaay boo xamante ne amul dara lu koy war a mën a gome amul dara luy ñëw mën a installer leer ba tukkee ko fa yàlla waaw yàlla leeraayu yàlla bu gisee xol bu lëndëm ak bokkaale day ñëw romb dem bàyyee loole loolee illa man rahima rabbi lu dut xol bu yàlla yërëm kon luqmaan keroog bu doon waar doomam ci waxtaan bañ doon waxtaan da ko yow sama ndoom ngal la waay maa lay moytandikuloo bu fi nekk di bokkaalek yàlla dara bu fi nekk di bokkaalek yàlla lenn ndax bokkaale tooñ gañu ko ëpp waaye lëndemaayu àddina dabul sax bokkaale yàlla ci lëndemaay waaw mu di ko wax ay nasiha ay conseil yu bëri ba buur yàlla subhaanahu wa taala intervenir mu ne bi ne wa wassayna al insaana bi walidayhi xamalatuhu ummuhu waxnan ala waxnin wa fisaaluhu fi aamayn an ishkur li wa li walidayka ba buur yàlla doon intervenir di dëggal ndénkaane ba mu dénk ñaari wuy doom di takk nder di tuur tànk ci dundu àddina bi buur yàlla ne wa wasaynal insaana man yàlla maa dënk doomu aadama ñaari wéyjur moo tax mu ne wa wasaynal insaana bi waalidayhi waaw doomu aadama bi de moo xam ku góor la moo xam ku jigéen la maa la dënk ñaari wéyjur ñoomit di nit ñi yow say wéyjur ñu doon nit ni yow duñu jinne duñu malaaka duñu rab duñu mala nit lañu ni yow la nga yor lañu yore bu dee mbindu na góor nga yore la nekk ci góor gi moo nekk ci yow ci mbindin bu dee mbindu nu jigéen nga yore la nekk ci yaay ji moo nekk ci yow kon yàlla dalay bëgg a firndeel ne yow nit ba gane si àddina damala laa dénk ñaari wuy jur ñu di nit ni yow waaye yàlla nee na ndénkaane bi nag ma wóolu si yaay ma wóolu si laa gën a wóolu ci ndénkaane bi ku góor ki waaw ndénkaane bi donte ci ku góor ki lay jógee waaye yàlla nee na ku jigéen ki laa gën a wóolu ngir mu war maa war a mën a téyel ndénkaane bi moo tax mu ne xamalatuhu ummuhu gis nga daa effacé turu góor andi turu jigéen mu ne xamalatuhu mu yenn ko mu ëmb ko ummuhu yaay yaay ji moy kii ëmb mooy kiy yenu ndénkaane boobu kon ndénkaane ba yàlla dénk ñaari wayjur yi yàlla nee na bi mat mu war ñoŋ mu war a jebbi mu war a meññ ku jigéen ci laa si gën a wóolu ku góor ki moo tax mu ne xamalatuhu yenu na ko ëmb na ko ummuhu yaayam yaayu kan mooy yaayu ndénkaane ba yàlla nara dénk ñaari wayjur yi wax nan ci kaw coono la ko ëmbe ci kaw coono la yenu ndénkaane boobu ci kaw coono la yàlla ne ndénkaane bi ma jox yaay ji ci kaw coono la ko ëmbee premier mois am na la fay xew deuxième mois am na la xew troisième mois am na la fay xew loolu la yàlla di firndeel fii mu ne xamalatuhu yenu na ko ëmb na ko ummuhu yaayam wax nan ci coono ala wax nan ci kaw coono weer bu ñëw ak moromam am na leneen lafay xew loo xamante ne xamu ko moo tax ndeysaan ñi ci dugg lu bees ñamu ganesi ci lu bees ñu naan bii mooy njëlbeenu nekkinam ngir mu jànku wantek la mu nekkee nii ah boo amul bàjjen ju baax wala amuloo yaay ju baax ah xale boobu day xaw a day xaw a waaw la xeeñ mu manifester waaw muy lekk lu ne lu nekk lu ne lu ne nag surtout waaw surtout yal na leen yàlla yërëm macha allah yàlla ne xamalatuhu ummuhu wax nan ala wax nin yaay ji daal di ëmb ndénkaane boobu ci kaw coono après coono coono ci kaw coono gannaaw coono li leneen waaw comme ni ko gaay di defee wala nuñ koy gisee yàlla ne wa fisaaluhu fi amayn ndénkaane boobu bu ma dogalee ba mu gane si àddina keroog la muy namp ak la tax ñu di ko feral boo ko cumuler lépp ñaari ak yu mat sëkk ñu ne ëmb ak imbi coono bu fa nekk ku duti yàlla ak ki ko yàlla teg kenn xamu ko ñu ne coono ba nekk ci nampal beg feral bi ki dul ko yàlla teg ak yàlla mi ko ko teg kenn xamu ko ba tax na suñu maam ju baax ji di sëriñ cheikh ahmad tidiane si almaxtuum rahimahullah ci waxtaanam yu universel yooyu ak njàngaleem yu matali yooyu nee na léeg-léeg ki la yàlla booleel ngeen nekk di jaamu yàlla ci néegu si bu tolloo ci anam bi yàlla di wax ni nii xamalatuhu ummuhu wax nan ala wax nin ndegem yàlla dakaa loo coono yàlla dakaa dënk mu ëmb ndënkaane goo xamante ne da koy ëmb coono ci kaw coono suñu maam ju baax ñi di si Ahmad si almaxtuum rahimahullah nee na léeg-léeg pour être galant soxna Mari sëñ bi nee na da ñëw jil sa nopp taf ko ci biir walla ci jumbaxu soxna si ne ko gan gi tey la mu wax mu doon benn cofeel bu nga xamante ne yéen ñett yéen a koy partagé loolu ngay def noonu soxna si di siy bég bu ci bëggee am kontaante la ci biir da ciy bëgg moom it da ci amaale contentement su ko defee mu doon loo xamante ne da ngeen koy partager yéen ñett ci seen néegu sëy mu doon cofeel ma wadda wa rahma ba yàlla doon junju ci diggante ñaari way dencante yi su ko defee loolu yëpp da ndimbalu yàlla ci diggante ñaaru dencante yi islaam incarné ko alquran rëdd ko waaye en tant que jullit ñu war a bàyyi li ni mel ak suñu njàngale mag ñu baax ñi ñuy inspiré wu ci ay occidentaux yi ñuy inspiré wu ci ay ñoo xamante ne bokkuñu ak ñoom doxalin bokkuñu ak ñoom téere xoolal galantéeri bu toll ni la aaya bi wax xoolal galantiri bu toll ni la suñu maam ju baax ji doon waxtaan ak askan bi mu nekk xam-xam bu universel kenn mënu ko dégg ci langage ba mu ko doon wax lu dul dinga ko accepté wallahi buñ ko traduiroon ci weneen langue tamit day doon yow mu ko dégg ci langage ba mu ko doon wax ba ci am mbégte buñ ko doon traduire ci beneen langage xataa buñ ko doon traduire ci langage u chinois chinois bi bu ko déggee wallahi di gis ci kar kanamam day belli day kontaan day xam ne wax bi ñu traduire nii ki ko wax philosophe la aalim la xam-xamam foo ko natt weesu na ko yan ñu ko yàlla fayal ci njàngalem bam ñu bàyyee fi rahimahullahu rahmatan wasia ba tax na yàlla buur bi tabaraka wa taala ne ñu wa fisaaluhu fii amayn coono ba soxna si di daj ëmb beeg nampal beeg feral bi yépp boo ko doon cumuler ñaari at lay mattale ngir lan anishkur lii wali waalidayk ngir yow doom yow tuut tànk bi boo màggee ba ràññetle ba xam fi nga jaar gannaaw ba la ko alquraan jàngale nang ma sant man yàlla waaye na delloo njukkal say ñaari waajur yi de waaye tamit na xam ne ilayal masir ci man yàlla ngeen di delsi ma rekle leen baay bi day faatu day dellu fa man yàlla yaay bi day faatu day dellu fa man yàlla waaye faatu dellu fa man boo amee doom mu doon sa sët xamal ne sa sët boobu ak sa doom jooju ak seen famille ilayal masir yéen ñëpp waaw yéen mboolem seen ci man yàlla ngeen di dellu famille bii yëpp ci man la ñuy dellu mun na ñoo ñëw par benn benn mun na ñoo ñëw global waaye nag ilayal masir ci man yàlla ngeen jóge amul feneen fu ngeen di dellu fu dul fa man yàlla kon su ko defee lii mooy la aaya bi di tekki kon ndegem ci yàlla la ñuy dellu te bu ñu demee fa yàlla dinañu régler par rapport ak luñ doon dunde ak suñ tu tànk yi kon di leen fàttali ne rek kado bu ñu yàlla jox di tuur tànk yi ñu ngi ci vacances nañ leen jàpp loxo xale yi yóbbu leen ci daara vacances yi booy école tijjee ñu kimile njàngum alquran ak njàngum nasaraan bi su ko defee ñu installé suñu génération bii di ñëw weneen anam yeneen nit yeneen jëmm yoo xamante ne bu ñu fi yàlla bàyyeek ñoom su ko defee buur yàlla tabaraka wa dinañu may la nga xamante ne mooy génération yu bees ya nga xamante ne ñu ngi digmal di ñëw yan nañu yàlla may dégg ak topp mbokk yi waxtaan wi jeexut dafa fekk ne rek dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana nasaluka allahumma an tajcala lana min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana lu jub si kàddu gi ñu santee ko yàlla lu ci dëng ñu ngi koy jéggalu mata di ki ko doon def la waaye lu ñu si namoon mooy ñu defee ko comme ni mu nekkee ba tax na lépp loo xamante ne buur bi tabaraka wa taala wax na ko ci aaya yan yal ko yàlla man loo yal nañu ko yàlla kattanal ñu war koo mën a taxawee loolu mooy la nga xamante ne moom la ñuy ñaan yàlla yal nañu ko yàlla kattanal ba tax na xadisu yonent bi doon waxtaan ak yéen mooy kullu mawlud yuladu alal fitra bépp wuy jur wala bépp tu tànk day ñëw gane si àddina ci anam bi nga xamante ne moom la ko buur yàlla sedd moom la ko buur yàlla wërsëgal mu gane see noone ci àddina waaye yonent bi nee na comme ñaari wuy juraam yi ñoo koy tette mu nekk la ko yàlla bindee noonu waaye nag ñaari wayjur yi ñoo koy bàyyi sagom ba seytaane ñëw këf ko jëmale ko fi nga xamante ne mooy jikkoy yahud wala mu këf ko yóbbu ci la nga xamante ne mooy jikkoy nasaraan ñu ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala allahumma aminna fi awtaanina waslih illahumma na wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan